ci nettali boo diggee benn wax lañ lay wax baayam gërëm na ko ba fu maanaam ba fu ngërëma dem ndax bi muy taxawu baayam boobu du tey sa diggante ak baay waaw diggante papa ak doom rek xam nga diggante doom xam nga am fu mu ñu féetee li ñu wax rek moom kenn la woon ci man mais waajur moom sax moom lu waaye def moom dangay ngay rek mais seen fay moom kenn amu ko wax dëgg yàlla xam nga moom xam sama papa yàlla boole woon ñuy liggéey xam maam fu ma tolloon ci moom daal xam comme doom yëpp rek moom daal lu ñu def lu di ko ñaanal rek xam nga suuf woyof ci kawam yàlla jéggal ko balaa ko yërmande teeru ko jaay Seydina Mohamed loolu lañ koy ñaanal yàlla xaree ko àjjana. mbas mi Modou ban message lay yónnee Sénégalais yi pour ñu gën a fàggandi. waaw waaw comme nu consigne yi waa kër docteur joxe rek chaque fois. xam nga ñu respecté consignes yi xam nga di raxas chaque fois di takk masque yi xam nga moytu daal waaw parce que affaire yi moom xam nga baal bi nga xam ne wàcc na xam nga adduna bi yëpp ko yëg luñ ne Sénégal adduna bi yëpp ko yëg wax dëgg yàlla di ñaan yàlla mu gaaw jóge fii ba activités yi continuer wa daal incha allah. jërëjëf.